yalla mo leen gëna mëna mën ay pexé rek moo jële Xalifa Ababacar Sall ci biir meereem yobbu ko police ci andul ak yoon ay pexé ñoo ko yóbbu ci juge d'instruction ba ay pexé yoy it ño xotti suturaam ci biir assemblée nationale pexé yooyu ñoo ko jugé en première instance ba tay ji ñu nekk ci appel defe won na ni ñom seen pexé ak seen yéene كن دار دوتول جوب فور غالون كوركا واي خاموني وون ني يالا جي تشوبريم ليب لو مو تابخ ريك دا فكاي ووتال سبب خينا نيوم انسترومون لا نيو فور سينيغالي ييب مانا خام لان موي ام سولو غو خامي ني جوستيس ام نكو سولو تي ريو ماكي سال اك جيفم خينا تكتال لا فور سينيغالي ييب خام lan la ñu war a def ak coono gan la ñu war a fournir pour defendre lii nga xame ni mooy suñu bërëb bu attekaay yi ndax ku amul ay magistrats yu jub ku amul ay magistrats yu maandu ku amul ay magistrats yu yemale askan wi réew moomu sànku na décision bii nga xamee ni nag cour de justice CEDEAO jël na ko ñu ngi ciy sant di kontaan lool ndax dafa fekk daf ñu fekk si li ñu taxawoon démb ak bërki démb ñun mos ñoo dañ di wax sénégalais yi ni lii ñu def xalifa Ababacar Sall dara jaaru ci yoon dara teguwu ci li nga xam ne mooy charte constitution ak droit wu doomu aadama yi bu kuur CEDEAO waxee ni mayu leen ko mu am ay avocat joxu leen ko benn yoon pas-pas bu mu mën a taxawee wane ni lii ñu koy tuumaal nekkul te it atte gi ngeen ko atte atte bu bon la atte bu ñaaw la atte boo xamee ni dëkk taxawul ci dëgg atte la goo xamee ni méngoowul ak charte yoonu atte yi ci biir réew mi loolu bu ko ay jàmbur ci biti réew xoolee dossier bi ba génne loolu ñun dañuy sant yàlla xam ni nag bunt am na sant yàlla googu lim ñuy njëkk a wan mooy ñun sénégalais yi war nañu def attention bu baax a baax ndax juge CEDEAO yi ak juge Sénégal yi ñoo bokk école yi ñu leen formé

dàmp nañ leen trent cinq millions nañu dem ak seen trente cinq millions nañu continuer dominer leen nañ leen continuer martyriser nañ leen continuer tooñ nañ leen continuer toroxal yóbbu leen fa nga xam ne fa lañ war a nekk déedéet mbir mi demeewul noonu ndax ku xool mbiru Khalifa Ababacar Sall boo ko weddee jàppe ko sa mbiru bopp ci ñi nga xamee ñoo jóge ci gouvernement bi di wax ci wax jooju xanaa ñoom dañoo fàtte ni bu ëllëgee dinañu ñàkk nguur gi bu ëllëgee mënees nañu taxaw ci kanamu juge ak juridiction yi nga xamé mo nek ci si réew mi yaakaar naa ni du ben ci kilifa yoyu moy bëgg ñu atté la ci lo xamé ni amulo avocat du kenn ci ñom ñoy bëgg sa présomption d'innocence ñu foy ko du kenn ci ñom moy bëgg ñu jaare la ci procès bo xamé ni équitablul say ak ak say yelef kenn matalu ko question bi lool rek la bu amone lu lëndëmoon ci mbir mi ba tax ñen ñi taxaw seetlu si bu amoon loo xamee ni leerul woon ci bopp sénégalais yi ba nit ñi nii man dey duma ci dugg ndax xawma affaire yoon laam déet affaire politique laam déet léegi leer na nàññ li wolof naan kumba feeñ na comme kumba feeñ na te dëgg gi leer na naññ jóge na ci gémminu jaambur boo xamee ni du politicien du sénégalais kon li ñu war ñun Sénégal moo ñu xam ni benn am nañu gàcce ndax suñu sàggante moo ñu ko yóbbul ñaar depuis attaque lu toppa ngi ñu ngi tooñ doomu aadama ci biir réew mi réew moo xamee ne dafa chartante woon ni dina défendre citoyen bi réew moomu mi ngi organiser woo ak benn association de malfaiteurs pour attenter aux libertés de quelqu'un donc la conclusion benn lay doon conclusion bi du ñaar du ñett mooy boo defee njombe def toj-toj ba ñëpp wax ni toj-toj bi lii la fii la toll li war mooy nga arrêter les frais te gouvernement au Sénégal dafa war a dimbali boppam dimbali ñu. mooy mu tëj gémmiñam ci mbir mi te jéem a toppatoo it tey Sénégal nit ñi naanuñu mbalit a ngi leen di bëgg a rey état de droit amuñu ko càcc geeg corruption bi mu ngi lëmbi ci biir réew mi loolee lépp toppatowuñu ko mu am lu leen doy sëkk ak barke ñu wëlbatiku di yaatal tooñ goo xame ni addina yépp d'accord nañu ni Khalifa Ababacar Sall ku ñu tooñ la te état wu Sénégal moo ko tooñ ndax faiblesse boo xamee ne Macky Sall dugal na ko ci suñu système politique. kon conclusion wu situation bi mooy képp koo xamee ni décideur nga képp koo xamee ni borom mbaat nga ci réew mi képp koo xamee ni mbañu rus nga sëriñ nga ak ku mu mënti doon seetal ni mbir mi mën naa dal sa njaboot seetal ni mbir mi mën naa dal say taalibe seetal ni mbir mi mën naa dal citoyen sénégalais te réew mii ñu bokk waruñoo nangu benn yoon. ñu mën a fekk benn citoyen rawees na si koo xamee ni député la di maire de Dakar tooñ ko tooñ gu wér péng jaay ko doole jaay ko wér doole gu wér péng ba nga xamee ne yépp ñoo d'accord à travers la décision de la cour de justice de la CEDEAO ni kii de ku ñu tooñ la kii de amul procès bu équitable kii de amul présomption d'innocence kon la conclusion simple modi di nañu arrêté affaire bi libéré ko mu dellu ci biir këram toppatoo wi liggéeyam ñom su leen intéressé comme ñoom dañu naan ñoy champion wu reddition des comptes su leen intéressé nañu delloowaat mbir ma procédure ba ca tàmbali ga jaarale ka ci citoyens yi fan leen wara jaarale ndax le pire des criminels ki gëna a ci ñi gëna a ci doom aadama yi il a droit à un procès équitable te Khalifa ababakar Sall ñort bu ñaaw caay-caay bu leer jëf ju bon moko ko yóbbee lii lépp biir képp kuy sénégalais nak waratoo mëna tok di seetaan gannaaw buñ ñu toñé toroxol ñu xott suñu sutura à l'étranger ñàkkal ñu fayda ba nga xamé ni juge yi nga xamé ni ñun ñoo leen di fay ñoo leen di fay fin du mois ba ci conseil constitutionnel bi nga xamé ni liñ leen di fay duñu ko fay wa CDAO CEDEAO ñooñu ñëpp ñu jàngandoog juge yi même école sàggana sàggan dugg ci baadoolo bu ñuul bu ñaaw goo xamee ni da ngay gis dëgg mu ne fang nga këpp ci say bët toppatoo say intérêt toppatoo intérêt ko xamee ne bu sottee muy tastem rewmi et c'est ça le problème de fond le mal il est là-bas Suñu ñu fajj li nga xamee moy jafé jafé rewmi nañu bayyi ñu deful dara ñu ñuy fitnal nañu bayyi ñi nga xamee dañu am seen yéene ci rewmi ñu bëgg leen bundaxataal nañu dem toppatoo sàcc yi corrompu yi ñi jël al rewmi di ka may jaamur toppatoo ñi nga xamee ni la nga xamee mo doon suñu farata defuñu ci dara wër di wax ak di wax wax jo amul benn amul bop ameli geen te je pense que c'est ça la notion de fond liñ am di ko conclure dal moy ngeen xamni Khalifa ku ñu togn la justice bi ñu am ci Sénégal bu ñu wara défar la te mënuñoo accepter ñun ab citoyen en toute injustice et en toute illégalité ñu attenter à ses libertés ba pare bugg ko xañ liberté am ba pare bugg ko xañ ay droit am ba pare bugg ka xañ ngorom yàq deram te dara taxul ñu yàq deram lu dul bëgg ak ëpp man di lii xaw ma ban moddu nguur la xaw ma ban moddu nguur la yow boo ñu bëggalee jàmm te pour nga am loolu nga wax ni moom nga ñuy bëggal foog nga xotti sutura jàmbur yi foog nga yóbbu nit ñi prison foog nga tas kër yi mais kii moom doy na waa naa ah, dafay mel na ni rek sàcc boobu nga xamee ni dafa gis benn waay buy joxe taalibe sëriñam addiya mu ne ah man de lii dama koy joxi sama sëriñ mu ne ko man mii de laa jëm kon jox ma ko ma joxal la ko sëriñ waa ji génn addiya gi mu rëy mu rëy lool bare xaalis lool di ay millions ngi milliards yu bare jox ko ko waa ji di ko sant di ko sant bay jooy addiya jaamoon nga si jooy liggéeyal na suñu réew nga ñuy bëgg a yóbbu kaso ak def loo xamee ni c'est aux antipodes du travail bi ñu la wax kon nga xamee ni kii jàmm moom naru ko si réew bi wax naa leen ko dinaa leen ko rappelé waat nag bare na lu feeñ ci sëy

day doon sutura pour 15 millions de sénégalais day doon état de droit pour 15 millions de sénégalais waye présidence bo xamé ni bëgg-bëgg go xamé ni ci kaw sacc ci kaw tapalé ci kaw jaay doolé ci kaw yobbu nit ñi prison ci lu àndul ak dëgg àndul ak yoon rek nga taxawé ba paré bo jógee jaay sa lami wu rëy di ngaa ko ñep naan transparence ak reddition des comptes bala nga reddition des comptes ana wa product bala nga reddition des comptes ana sa waa kër yi bala nga reddition des comptes alal ju bari ju ñu leen di soupçonné fu mu nekk gumba war naa tal leneen lu dul tëbi